Demain, je vous recevrai avec toute la République. Au-delà de la République, c'est toute la nation qui sera là demain devant le Palais de la République à partir de 16h pour vous dire ce que le Sénégal fera avec vous, pour vous donner une récompense à la mesure de vos efforts et de vos résultats dem ngeen ba jeex indi coupe bi jërë ngeen jëf itam mbokk yi bi nga xamantene tey Sénégal yépp fi daje ndax li amul kujje amul gouvernement amul opposition peuple bi moom moom ndam li peuple bi ñooy teral lion yi li moo waral bi may ñëw ci suba laa woote ministre de l'intérieur ne ko fexe leen ba jot opposition bi ngeen na leen président bëgg na ngeen ñëw yéen it fekkee teeru bi ndax ci ngeen bokk li ma bëggal équipe bi moom ngeen bëggal équipe bi te boo leen newoon fii ma nekk moyen yi ma ci def gëm naa ne di ngeen ko def pour ndam li ñëw kon yéen ñu sant leen bu baax ndax lii mooy Sénégal dafay am jamono yoo xam ne mbiru kujje dañ koy teg fële ñu feete ba pare après nag ñu jógaat ñuy takk ngemb yi takkaat ngemb yi ñu demaat ci terrain bi mais loolu warul yàq li nga xam ne moo ñu dajale te li dajale moo ëpp solo mooy Sénégal loolu lañ fi gis ma kontaan ci lool loolu nag gone yi ñooñu ko may muy lion yi ndax seen taxawaay seen njàmbaar seen fit seen jom parce que nag coupe bi ku amul jom dogo andi indi sa réew jamais ku amul fit ku reyantewul doo ko indi lii moo tax ba ma di jox drapeau bi ma ne xam naa ne football loolu kay kenn du ko di xam naa ne première équipe de l'Afrique kooku FIFA moko ko wax waaye doyul li des moy arñe bi ak xex bi nga xam moy tax nga def ko nous avons ko des ci match yi surtout à partir des quarts de finale des demi finales et hier de la finale face à l'Égypte vous avez dominé tous les matchs gàcce ngaalaama gaynde mbarawach. mbarawàcc bëgg nañu ci turu peuple bi yëpp maa ngi rendez-vous ci ci palais de la république Yen ak seeni vos familles. famille ngir Senegal tatagal len teral len, ndax ndam li ngeen ñu andil fierté bi ngeen ñu may ba Senegal na tey ci àdduna bi yëpp moom la ñuy wax parce que moo xew ci jamono kon jërë ngeen jëf yéen Gaynde Njaay jërëjëf Aliou Cissé yow mi nga xam ne yaa leen tàggat yaag sa équipe jërëjëf fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor ak ay nitam waaye nag jërëjëf Matar Ba yow tombe mooy waral ay gaaf ak sa équipe jërëjëf gouvernement bu Sénégal ak peuple bu Sénégal jërë ngeen jëf ba ëllëg incha allah